technologie métabolisme nutrition euh, téere bi ñi koy yitte woon nag mooy ñi nekk diggante licence ak euh, doctorat di jàng euh, waa kër ñoom lañ ko jagleel dafa yemook ci livre bi daf ci am pàcc bu am solo boo xam ni daf ko jagleel alcool ak alcoolisme noonu la tudd te it ci xeet yooyu lay liggéey Euh, mbirum obésité diabète sucre nutriment alimentation euh, thyroïde yi muy def pancréas ci ci ci doomi aadama mu yamoo kit Jakarta di waxtaanee ci ci réew mi ak euh, ay xale yoo xam ni ci lu ñu jàng ci presse bi en tout cas am na ñu mu ci faat te it bu faatul it mi ngi fagaagal ndax boo àndutul ak sago sa sago dooru sa def ñaawteef ba tax ñu war ci waxtaanee ak dogal bi nga xam ni président jël na ko conseil des ministre ba ministre de l'intérieur mi ngi koy mettre en œuvre tere njaay mi ayit baar yoo xam ni ñu ngi koy tëj ci réew mi. Euh, professeur bu ñu doon euh, tënk ndax am na xew-xew boo xam ne tamit euh, mais bu ñuy jeexal dinañ ci wax moom moo yemoo livre bi alcool Jakarta bi ñuy wax lu tax muy lor. waaw jërëjëf Jakarta dañu ko tuddee Jakarta waaye li ñu war a xam ne mooy alcool la. Mhm. alcool mooy sàngara. sàngara oui. alcool nag bari ay xeet. Mhm. ci euh, degré bi wala puissance bi. Mhm. Euh, mu am euh, ñaari façon yoo xam ne mën na ko def si nit li ñuy tuddee ivresse aiguë mooy naan nga ci lu bari mu am lu mu yàq ci sa ci sa xel wala ci sa comportement ak intoxication chronique mooy ci diir bu yàgg li nga xam ne moom lay yàq ci cër yi. donc ndegam mag mag la mën a sonal. bu dee xale moo koy jël te organisme mature gul noonu mhm. jafe-jafe yi muy indi ci mag bu ñëwee ci nen ci ci gone mhm. xel mën na comprendre mu am li mu yàq lu lu bari mhm. mais euh, li ci li ci gën a doy mooy alcool <coughs> li ko composé muy éthanol bi <coughs> dafa di loo xam ne dañ ne substance psychoactive la maanaam luy substance psychoactive rek yaram bi daf koy tàmm dem ba xam ne daf koy laaj muy lu ñuy wax dépendance donc euh, xale bu commencé di ñam tuuti di ñam di ñam di ñam day dem ba bu ko jëlul. Hmm. yaramam daf ko daf koy laaj. su ko defee mooy toll mu dugg ci cercle vicieux boo xam ne toujours euh, au lieu mu lekk lekk normal. ci hmm. alcool bi lay lay lay lay lay dëkk. Hmm. donc benn quantité mm-hmm. mën a tax mu tàggoog sagoom mm-hmm. wala mu commencé di wàccu mm-hmm. wala di def convulsion wala amay comportement délictuel ba tombe dans le coma bu fekkee ne dafa yéeg trop comme ni ko mag di di bu amee boobu alors Malal premier témoignage bi defe na ci yow laay ñëw ndax euh, bi ñuy waaj émission bi nee nga ma fa nga dëkk Jakarta bi mi ngi faagaagal xale yi loolu lu wér la lu nit mënula dàq la jakarta xeetu sàngara boobu day laajte lan mooy jakarta xeetu sàngara bu ñuy jaay la mu nekk ci sachet yi wane nañ ko léegi cinquante centilitres yi cent franc deux cent franc nga jot ci ah dafa nekk di lor malal mi ni ma la bi ñuy waaj émission bi am na lu ma ci wax malal bismillah xam nga boo jëlee ay banlieue yu mel ni Pikine nga jël ay banlieue yu mel ni Géejawaay nga xuus ba Thiès nga xuus ba ay Kaolack même surtout tu tamises à regarder les rues da ngay gis ay butéelu jiin yi nga xamante ne mooy campé décor bi quoi. loolu rek déjà information la bu mu lay jox ci liy xew ci quartier yi man dama nekk ci quartier boo xamante ne d'habitude damay gis ay boy yu bëri mais mu nekk benn affaire boo xamante ne dañ ci war a jël ay mesures yu taxaw parce que bu njëkk xëy na boy yi dañ doon 15 jene am jen jeneer fii taf-taf daaj bi seey mu ñëwaat nga laalaat et cetera mais léegi ñi gën a ndaw ñooy utiliser ñooy utili mooy ñooy utiliser ñooy utiliser Jakarta ñenn ñi bu 600 lañ ko euh, parce que ça coûtait 600 francs léegi defe naa prix bi yokku na e c'est vraiment dem na ba nekk mode te c'est en train de faire de ravages dans les quartiers boo observé dans les quartiers populaires ça fait des ravages et des ravage énormes énormes c'est-à-dire da ngay gis benn booy bu am vingt cinq ans tu as l'impression que la am parce que daf ko yàq na organisme bi hmm. te crimes yu bëri effectivement ci yu mel noonu lay hmm. jóge euh, sum-sum suuk na sum-sum ak kaana euh, sum-sum xam nga bi ñu parce que problème bi ñu am ak sàngara ñun bu njëkk sàngara nit ñi ci garab yi lañ ko doon jëlee huile de ci ci huile de palme lañ ko doon jëlee sëng lañ ko doon euh, lañ ko doon sëng la woon wala ñu defar derkase et cetera fermenté ko nit ñi naan ko tey c'est c'est industriel te boo xoolee bu baax dans les quartiers c'est en train de faire véritablement de ravages bëri na booy xool benn taux de criminalité bu xaw a yokk sax bëri na ci li nga xamante ne ci loolu la jóge donc en fait je pense que loolu c'est une question essentielle bu nit ñi war a taxaw def ci ay politique yu forte nit ñi dañuy dugg da ngay dugg sax si boutique jënd benn affaire comme mbuusu ndox ah, tey ko nii naan dox sa yoon les élèves qui sont dans les écoles ils sortent ils rentrent dans les boutiques ils les achètent c'est tellement terre à terre et c'est devenu finalement mode la booy même bu ñuy jàngi dañuy da ngay gis booy bu dugal ay ñaar ñett ci biir saagam c'est mais c'est c'est très très grave ah pour man c'est très li ñu war a taxaw effectivement suñu bëggee sauvegarder ah cette jeunesse là il est important ñu jël ay mesures yu forte forte tëj na baar yu amul autorisation et puis ah, y a beaucoup de daaka y a beaucoup de clando yu nekk ci biir dëkk bi donc yo yu deme noonu et c'est en train de fair des mu ngi def ay ravages yoo xamante ne c'est doy na waar quoi allez Papis Diaw Hmm. ah man de dama <laughs> dama j'ai pitié de moi-même. Hmm. et des autres parce que euh, dama am que et c'est des choses qui me reviennent très souvent. Hmm. à la suite des des constats que nous faisons sur des questions mais essentielles dans ce pays et qui ne trouvent pas solution. xam nga il y a quelques mois docteur fi nga toog nii y avait un docteur qui était là il s'appelait docteur Fallou Samb. mais exactement xam nga ce qui a changé par rapport au prétexte de l'émission. turu Sangaré tey on parle de Jakarta docteur Fallou Samb bu mu toogee fii am na benn tur bu ñu ko tuddee woon ñu naan genre haute colonie la. bu ñuy jël il paraît c'est depuis 2011. 2011 mais la lecture qu'il faut en faire aujourd'hui ça veut dire que rien n'a bougé amul évolution. Hmm. on en parlait il y a 2-3 ans le même cas se reproduit c'est les noms qui changent le problème reste entier moo tax ma ne j'ai pitié de moi comme temps yi bariwul. ma bëgg a bàyyi docteur. oui ma may la ko exactement gën ñu. oui parce que c'est plus important que man may wax. exactement merci beaucoup Papis. Euh, euh, Birima. man de yàlla xam na ne Jakarta xaw <laughs> wallahi a dégg tur bi. Hmm? wallahi tey laa ko mbedd mi di woowee. Hmm. waa nañ xam nga moom xale moom dañ ko war hmm. ak ci lu man di nekk man mag mu dem ba nekk mag. toll lu ko neex di def lu ko neex sama yoon. oui bu ko neexee. c'est son problème vraiment damay mais quand boo xam ne xamagul dara obligation la ci réew mi obligation la ci ñun environnement bi ay bokk xale yi ñu protéger leen en tout cas li wa jar wax moom te ko wax mooy. en tout cas xaw boobu xaw ma super am na ko fa wax ci benn jàkkaarloo boutique foo ci angle bi dañoo jël jaay sàngara def ko comme est-ce que xam nga gis sàngara nga dem gis jaay jaaykaay ndox ah? gën a la ci guddi nga dem station ba dem fii ñu ngi jaay sàngara ci guddi ba 3 heures dem 4 heures. ñu koy jaay fii foo tourné dañ ko war a réglementé. ak kenn mënu ko tere ñu jaay ko ci dëkk ndax ku ne am nga loo loo dund ko aw ma leçon de morale yi ma jox ak kii que soit mais quand même xale yi dañu leen protégé. xale moom dañ ko war a protéger. te loolu am na xale xaw ma ndax sama doom ak wala ci. Mm. ku doom yi def duñ ko xam doom dafa demal jàng mais dama def ci école bi a ngi toog fi yaakaar ni doom ñu gën la ko doom mooy mooy chef mm. ku mën a waatal sa doom ah. mm. te ñu am nañ ay doom yoo xam ne ci di jàng donc lu mel noonu boo xam ne yow mi père de famille da ngay tax tiit quoi donc man en tout cas. maa ngi ñaan daal et loolu ministre de l'Intérieur commencé mu mu mu taxaw ci quoi. bon xale yi dañuy war a protéger. Euh, xale dañuy war a euh, protéger. bon selon certaines informations usines yi benn bi Rufisque benn bi Thiès. Euh, ah usine Sénégal la pour que li oui pour malal xam na mi ngi la koy wax ne la léegi c'est en quantité industrielle. est-ce que tu sais Thiès moom problème bi weesu na sax ni affaire bi problème la mooy les gosses sont c'est des malades. dañu war a ubbi hôpital pour di leen faj. loolu loolu professeur dina ay c'est des malades quand tu am na quartier yooyu dem quand tu regardes les ils veulent en sortir ils ne peuvent pas. Ah. ils sont devenus chroniques et ah malades. Ah ouais, et addicts wax mooy voilà. addiction bi la malade di wax. xaw ma naka laa ko mën waxee ci wolof tàmm. Euh, dem ba mu doon loo xam ne voilà mu mujj nekk genre laa ko Pape Djibril alors euh, li ma la am en laaj mooy. Euh, sans stigmatiser l'ONG du ma cité quartier bi dëgg la ou pas nee na ci benn quartier fii ci Dakar 400 bars ñeenti téeméeri bars ñi ngi fa di ubbi. xam naa ne sax soxlawuñu woon ñi am seetlu. ak euh, bon dëgg laam du dëgg. waaw ñi am seetlu sax ak yittewoo ak yittewoo mbir yi. daanaka soxlawul ONG di ñëw pour constater ko. Mm. c'est-à-dire que aujourd'hui ça pullule partout foo dugg surtout dans la banlieue. des fois tu te poses des questions daanaka ruq boo gis mu am baar ruq boo gis mu am baar mais man euh, bu ñuy wax affaire alcool déjà dans les années quatre-vingt. Hmm. sëñ Abdou Lahad dafa defoon benn benn benn benn communiqué conjoint ak doomu Serigne Touba yi fi nekkoon yëpp ñu tere ko ci cité bi nga xamante ni moom mooy Touba. Hmm. ne bëgguñu ko fi naan sàngara rejoindre li biri ma wax léegi askan da leen di protéger. Hmm. te protéger boobu nga leen di def neex na leen ak neex neexu leen su la wóoree ne moo gën ci ñoom. jëlal décision bi. caractère impopulaire bi lu mu mën a métti métti il faut y aller jusqu'au bout donc loolu moo tax aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy les leaders d'opinion surtout kilifa yi jar na bu ñu leen dégloo ñu wax. ñu xool la ñu wax lu ci état di accompagner ñu accompagner ko su fekkoon ne booba. la mu waxoon amoon na adhésion état amoon na adhésion populaire xëy na tey li ñu jàmba tey coow coow lii du egg fii donc leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy protection bi dafa des surtout ci ndaw ñi dafa des tellement ba nga xamante ni xam nga keroog dama wax fii lu xaw a basique ma ne lan la ñu teg tey en place pour dimbali xale bi pour mu am un rapport très fort avec le drapeau national man xamuma ko xëy na xam nga ko man xawuma ko yaa ngi dégg donc yooyu yëpp mooy yoo xamante ni en encore une fois dañ ko war a def te fii xam naa ne il sera question de s'attaquer aux industries mm-hmm. yi nga xamante ni ñoom ay puissance yu métti lañ tamit yoo xamante ni foog état jël ci kii mais comme l'a dit Papis tey nous avons tous envie d'écouter le docteur alors Bouba à à toi <coughs> waaw man man lu may wax bon effectivement yàgg naa wax si si loolu parce que euh, xam nga ñun dañoo màgg ci ay bitiku naar bi bopp koñ bi mm-hmm. te mosoo fa gis dafa am yoo xam ne <clears throat> pour man conséquence conséquences yi la ñu nekk di di subir léegi cinq 500 mètres yoo def am na benn supérette bu fa ne supérette bi day jaay sàngara sàngara ki koy jënd warul nekk mineur. Mm-hmm. ñaata yoon ngay dugg ci boo demoon léegi taal ci station bi nga wàcc dugg. xale non mais da da nga ñëw jënd kenn du la laaj pièce d'identité kenn du la ko laaj ñaata at nga am pour jënd ko kii lay jaay xamul sax loolu cest à vingt ans après soo boo ji boo installé affaire boobu loolu vingt ans après c'est ça les conséquences parce que dañu jóge ci benn mode de de de vie dem ci beneen sans pour autant ñu encadrer te loolu moom moom nañu nekk di dund ah. parce que y a vingt ans peut-être ce problème là n'existait pas mm-hmm. ña daan naan ña ngay naan mais ce problème là n'existait pas parce que tout simplement te loolu boo seetee supérette yi quatre-vingt-dix pour cent yi fi nekk moomuñu ko sax andiwuñ ko mm-hmm. nasaraan yi ñoo fi jël defi euh, station essence commencé def fa benn super di jaay sàngara guddi gi à parti de 23 heures ñu may dégg guddi gi nga jaar station boo duggee sur 10 personnes 8 yëpp alcool la ñu jënd. ñii ngi dawal ñi ngi ñii ay jigéen lañu <clears throat> ñii ay mineur ñi si gën a bëri mineur booy taxaw mais dafay day day dafay répercuté wu. Mm-hmm. au bout de vingt ans si si si ñu ñu yu mel noonu te kenn mënu si dara donc je pense que le problème aussi. il faut que ñu teel ko attaquer pour xam on est 15 millions. ci hmm. 15 millions yi y' a 95 ou 90 pour cent de musulmans ñoo gën a jege ci normalement ñu dul naan en tout cas naan mooy jël alcool ñoo si gën a wax naan way bi naan du ñu def nii. mais loolu bu amee boo ko étudier di nga xam degré wu présence su alcool ci ci réew moom te loolu da nga koy limiter. nga xam ne du dem ci benn ampleur bu mag ci nga boo demee <clears throat> ñu ñu nekkoon ay États-Unis mais quest moo tax genre problème yi c'est pas des problème qui sont tombés comme ça dafa pour man yëpp c'est stratégique mm-hmm. boo demee États-Unis qu'est-ce qu'ils ont fait aux Noirs fépp fu nga xam ne muy Bronx la ak muy Harlem ak muy mm-hmm. Chicago ak muy Detroit ak yëpp non liquor store liquor store dafa am ay boutique de liqueur coréen bi moo koy jaay chinois bi moo koy jaay moo tax agression yooyu di am ñuy ñu rey coréen yeeg affaire yooyu ñooy ñëw ci euh, quartier black bi gën a difficile nga xam ne dañuy dóorantee bale mu sànc fa. bu déggul liqueur. mais coréen bi ñëw rek noonu parce que tubaab bi du ko def mais coréen bi lay indi jox ko bi parce que tant que noir yaa ngi naan liqueur. du ñu développé mu ah ci âge bu ndaw. Mm-hmm. donc pour man c' est un cercle vicieux te loolu. mooy li ma doon wax sànq ci kii bi suñu suñu projet de de société. ban genre nit la ñu war a. loolu yëpp dañ ko war a intégré xam nga ñuy wax affaire na fi génn fi. li ñu war a désencombré moo bëri. Hmm. te pour ñu def pour ñu ko <laughs> non stratégiquement. dafa am ay dafa am ay ay ay couches vulnérables yoo xam ne. Hmm. il faut que ñu attaqué leen et pour man sur le plan philosophique c' est beaucoup plus important que ay actes yoo xam ne yoo xam ne day dem nii te du régler à à la mi dara donc aujourd'hui bu ñu waroon étudier dañu naan en terme de de ñi ñi bëgg naan alcool est-ce que on n'a pas trop d'alcool au Sénégal par rapport ak li ñu li ñu bëgg wala li ñu li ñu li ñu mën a nekk kenn amul benn encadrement dangay ngay dem jënd alcool duñu la laaj mais dëkk boo ko France munoo am benn benn booy bu am 12 ans dugg si benn. ne jaay lan ma affaire bi. nekk. Hmm. boo ko defee boo ko jaayee waxuma la booy bi de. yow la ñuy tëj mais ban supérette nga fi dugg wala fan nga fi dugg ñu bindal la lii ak lii ki lay jaay boo maytul moom mineur la hmm. xam nga donc vraiment je pense que le problème responsabilité voilà waxum dans tous les domaines léegi nag ñu dem ba nga xam ne à sax yenn yi ñooy tane mais ñu dem ba nga xam ne affaire bi nekk loo euh, parce que pour man dëkk bi bu amee ay jakarta ak ay affaire yooyu ñuy nangu ñu koy jaay fii hmm. te étudier wuñu lan lay def pas xale ci nit ñi parce que il faut pas ñu def ko problème mu xale rek parce que adulte sax buy buy jëfandikoo affaire yi te fekk ni ñu ko defaree. baaxul mais te ñu nekk ci biir dëkk bi mais dafa am ñu am responsabilité boobu. war ko taxawal. assumer ko assumer ko ba mu dox quartier bu nekk bu dee lii ñu ne ñaata baar ñoo fi am ñaata baar ñoo fi war a am. noonu la ñuy protéger suñu doom yi. l'inventaire. def inventaire yi. sinon ça ne sert absolument rien. donc faut-il